aujourd'hui euh, mi ngi nekk diggante DGE euh, ak Sénat ci li nga xam ne moo ñeen la candidature d'Ousmane Sonko la remise plutôt de des fiches de parrainage est-ce que bu li amee dañuy wax ne foofu moom dootul amati solution maanaam Sénat dootul mën a ci intervenir euh, ci DGE pour remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. alors mu mel ni Sénat ginnaaw bi mu defee injonction am na yeneen pouvoir yu mu am muy pouvoir de désistement ak pouvoir. de euh, de substitution am na tax pouvoir de sanction euh, damay wax ni que même les avocats de Sonko soxlawuñu waatoon tax di bindaat Sénat parce que si seen premier ñoom euh, première saisine dañu wax ni Sénat yow am nga sañ-sañ yi nga user sa pouvoir yi ak éventuellement pouvoir yële de sorte que tey la balle est dans le camp de la Sénat Sénat ñoom ñoo jox injonction directeur général des élections mu bañ ko def donc donc la Sénat n'a pas besoin d'être saisi à nouveau par les avocats de Sonko léegi nag kon. Euh, mais du point de vue administratif est-ce que Sénat mën naa def injonction boobu jëmalee ko ci directeur général des élections mais aussi est-ce que mën na jël fiche de parrainage jox ko un mandataire. article 6 ak article 13 ñoo jox Sénat sañ-sañ. sauf disposition ci article bi légal. illégale ou administrative. waxuñu loolu. dañ ni bu fekkee ni euh, autorité administrative. dafa violer ak ñeneen yi mais pour le moment autorité administrative la. Sénat mën na joxe injonction. bu fekkee ni maintenant appliqué wuñ ko. Sénat am na pouvoir de substitution maanaam ki ko waroon def mu substitué wu àll lui def ko. Euh, keroog maa ngi wax ni c'est une. problème mais am na ñuy dàq loolu parce que dañ ne loolu ci biir euh, opération électorale la ko mën a def. mais dafa am ñaari disposition dafa am article 6 dafa am article ak article li nga ciy jàpp article 13 si boppam dañu la Sénat enjoint enjoindre so étymologiquement mooy mooy mooy ci injonction foofu la jóge mhm. donc ci disposition article bi bu ñu bàyyee tax article 6 bi article moo ni Sénat am na pouvoir boobu léegi nag man sama bopp euh, xam naa ni c'est une problématique d'ailleurs bu nit ñi di fàttaliku euh, jamono yële ci ginnaaw dama ni euh, bi may terminer sama tex man ni la Sénat euh, peut-elle mettre en branle ses pouvoirs justement de de substitution et et et de dessaisissement sans une saine collaboration avec le ministre de l'intérieur pourquoi parce que euh, ñaar moo mën a ne mooy soit yow nga nga ni waa ji moo ko war def damay jël keneen ci ministère de l'intérieur comme def ko keneen def ko est-ce que dañuy egg ci Sénat ci boppam daal ni ñoom duñ ko def man maa koy defal sama bopp euh, y a des problématiques yoo xam ne xëy na débat bi mayewu ko c' est yoo xam ne man ba mu koy posé du tey ba ñuy créer commission bi pour réfléchir sur la mise en place de la CENA si laa leen njëkk a wax il est koo xam ni en fait nommé woo ko beneen bi ci topp mooy heureusement d'ailleurs ci disposition dañu wax ni que la Sénat day proposer sanction kon tey bu ñu waroon sanctionné. kenn Sénat day koy euh, lettre dañu def invite vous invite. waaw mais loolu loolu nit ñi euh, xam nga tey. ñu jàngee ko comme euh, injonction alors que. invite la ndey faatu ndey faatu. man bi affaire bi amee xam na laa ko qualifié. Mhm. la Sénat a fait une injonction courtoise à la Sénat. donc bul ñu wax ne yaa a y' une phrase boo xam ne aussi parce que ñu ngi naan sauf disposition légale maanaam procédure bi nga xam ne am na ci justice ak Ousmane Sonko euh, peut-être loolu dañu dañu ko ci dugal pour wax ne na jël décision bi mais sauf. waaw li nga xam ne moom mooy dogal bi nekk ci ci wàllu yoon. maanaam loolu aussi comment le comprendre. xam nga loi même bu ñuy bind loi yi ak décret yi dañ naan la en général sauf disposition wala sont abrogées toute disposition contraire yooyu waxin la. parce que Sénat mais aussi c'est pour encadrer c'est du droit. Hmm. Sénat moo jël sañ-sañ. Sénat bi nga xam ni il faut que encore nit ñi xam leen. Hmm. Euh, j'ai l'impression que ñenn ñi dañuy jéem a diaboliser Sénat di indi un faux débat comme d'ailleurs xëy na dinañ ci ñëw mooy débat entre DG ak DAF kan moo am compétence. que ça xam nga man. de toute manière xëy na kenn ku bëgg a naïf nga naïf man jeu boobu du ci tombé te Sénat li mu leen wax loolu la ñuy retenir xam nga Sénat li mu wax li gën a am solo mooy DGE joxal ñële fiche jëlal disposition ak le les les les les les euh, acteurs concernés. Mhm. parce que néew foo dina nan leen yow ak kële la daaf la wala kële parce que administration encore une fois c'est c'est c'est c'est un et indivisible donc musuñoo toog. mu am comp querelle de compétence nga dégg ko naan ay daaf kii moo compétent wax nga sànq ne léegi pour revenir pour revenir pour revenir waaw léegi dama lay préciser parce que dafa am laaj laaj bu ngeen ma laaj mhm. Sénat bu ngeen déggee mu ni sauf disposition contraire loolu waxin la Sénat ñoo la gën a xam ne euh, bu fekkoon nii recours bi dafa suspensif da la koy wax or disposition contraire yooyu ñaar la mënoon doon mooy que euh, loi organique sur la Cour suprême ni le recours est suspensif or article 36 ak article euh, 74-2 de la loi euh, la cour suprême daf la limal recours yi nga xam ne dafa suspens suspensif benn la ci tudd ci affaire élection te xam nga ban élection la dañ la l' élection des conseils territoriaux maanaam euh, élection départementale ak municipale article L47 code électoral bi ci boppam dernier alinéa ni la décision yi nga xam ni moom la Euh, président tribunal d'instance jël ci mbirum euh, contentieux sur les inscriptions dañ koy wëyal et foofu dinaa préciser dara est-ce que xam nga ni contentieux sur les inscriptions amul appel est-ce que xam ngeen ni sañ-sañ bi joxuñu ko tribunal bi président bi dañ ko jox président buy àtte du toog ay juge wër ko de loolu moo tax mu jël ordonnance c'est parce que Sonko cas bi dafa xaw particulier mu nekk prison ay avocats ñëw donc il fallait que ñu déglu leen agent judiciaire de l'État dugg ci. mais mais mais justement alors euh, euh Sénat euh, yaa ngi koy wax injonction bu fekkee jox na ko DGE quelques heures après DGE également dafa répondre que ne moom dugalu ko ci fiche ba di ko génnee aujourd'hui la polémique wala boog le débat se pose entre DAF ak DGE. kan moom moo war a dugal Ousmane bon daaf parce que foofu la ñu ko dindee donc DGE moom génnewu ko ba di ko dugal ba war a joxe fiche de fiche de parrainage euh, réponse boobu également lan lañu ci ci mën comprendre waaw xam nga d'abord euh, boo delloo ci sañ-sañu DGE direction générale des élections euh, li tax ñu sos ko 1998 ginnaaw bi nga xam ni dañu def ay élections yi gën a catastrophique ci Sénégal mooy nga xam ne même Dakar dañuy reprendre euh, élection yi ci yenn barab yi ci euh, la ci la ñu mettre en place une commission d'évaluation et de réforme du système électoral ku jéggi waxtaan donte amul consensus mais en même temps président Abdou Diouf dafa commettre en fait une mission d'inspection général mu confier ko Cheikh Gueye bi inspecteur général d'État ci ci seen i conclusion si la président daal ne kon damay jël benn autorité administrative loger ko à l'intérieur du ministère de l'intérieur pour que moom qu'il s'occupe d'élection kon administration boobu ak cette administration électorale elle est différente même su fekkee ni am na tutel toujours elle est différente des autres formes d'administration donc lu nekk il faut nga xam fan la lan mooy fondement bi fan la soqee ko ci biir loolu euh, DGE ci boppam bu ngeen demee seen site internet officiel première compétence dañu la la direction générale des élections assure l'établissement et la euh, gestion des listes électorales mun la en relation avec la direction générale de l'automatisation des fichiers deuxième compétence mun la la direction générale des élections assure la tenue du fichier man 2011 ba 2012 j'ai été président la commission euh, révision des listes électorales production et diffusion des cartes Thiandella bii nekk à l'époque il était directeur des opérations électorales ak waa Sénat ak d'autres institutions on a fait combien de missions à l'intérieur et à l'extérieur sur la phase d'enrôlement et la phase de distribution des cartes man ba may njëkk dem Amérique ak Canada mission élection moo ma yóbbu en 2011 donc xam nañ mbir mi nan lay demee waa mbi xam léegi dama lay expliquer non non léegi waaw léegi compétence ngeen ma wax léegi mais ñoom nee nañu mënuñoo jël ay fiche de parrainage jox ko mandataire koo xam ne nekkatul ci fichier électoral parce que jotaguñu benn notification bu leen di wan ne kii mu ngi ci fichier bi. notification kan lañ ko wax ne na moo ko war def. daaf. non notification bi président tribunal d'instance bi jël dogal moo ko moo ko war def te def na ko jaarale ko ni ko ko loi bi waxee ci préfet. ñëpp xam nañ ne administration ñi muy doxee préfet boo ko joxee doo ko jox gouverneur gouverneur yéegal ko ci kaw. Mhm. kenn mu déggul nag DGE ni la euh, man euh, jotuma notification. Ah, kenn kenn loolu la ñuy wax ci seen déet déet il faut que nit ñi xam leen nag DGE li mu wax premier euh, communiqué. Mm. dani am na maanaam pourvoi bu ñu bu bu war a am. Mm. or ba muy wax loolu pourvoi bi amagul. Mm. j'ai été le premier à dénoncer d'abord cette cette cette attitude parce que DGE moment boobu am lu xew ñu jël dogal ñun ñi di xaar. que moom bu jëlee décision mu argumenté ko wax ni man fii laa ko teg ci disposition bi communiqué boobu amul benn disposition ah benn benn argument juridique mm-hmm. il a fallu maintenant ci deuxième communiqué bi muy tontu Sénat ce que d'abord je trouve inélégant parce que administration ñëpp xam nañ ni muy doxee mënoo ñëw jël bind lettre di ko bind beneen kuréel ba pare di ko publier maintenant man j'ai ah, très tôt e léegi dama lay wax dañ ko publier waaw dama lay déedéet ah Sénat ñëpp ci jot de. yéen yéen a yaakaar loolu. Hmm. ñoom dañoo jël seen décision parce que sur la saisine parce que pour. Euh, kon mu def ba yegg si taskatu xibaar yi. waaw mais seen euh, waa waa waa euh, avocat yi ñoo ko bind. Hmm. Sénat tontu leen. léegi bi génn ngeen ngeen bëgg wax ni Sénat moo ko génn. avocat yi lañ ko jox. waaw quelque part bu génnee kañ. en tout cas génn na daal. Sénat génnewu ko léegi nag xam nga Ali Kala ji xam nga lan la. Hmm. Ali Kala ji mooy. DGE la waxoon ci lettre am bu njëkk ba cest à loolu il faut que nit ñi comprendre loolu moom moom moom lay wéyal. donc bu dañu ñoom en fait dañu faatu dañu ni ñoom cour suprême la ñuy xaar. parce que au fond. souvent dama doon hésiter. mais loolu la ñu wax dégg dégg nañu ko que la première lettre est différente quand même ci lettre bu mujj bi ci contenu bi mais li ñu wax ci lettre bu mujj bu ñu fa taxawee comme li la kon day faatu waxee que ne ñoom génnewuñu ko ba di ko dugal loolu moom mooy question bi aujourd'hui. mais loolu ah man du ma ci piège boobu. Hmm. nee la administration ak sañ-sañu DGE dafa leer ci code électoral bi et cette question ne s'est jamais posée. c'est parce que simplement. donc mënoon nañu wala sans pour autant peut-être donner une explication selon laquelle gaaf moom moo ko dugal génne moom moo ko dugal xam nga d'accord naa moom xam nga ci deuxième communiqué bi dafa wax dafa dafa euh, euh, maanaam invoqué ordonnance bi nga xam ne moom la euh, président de la chambre administrative cour suprême rendre ci référé liberté donte référé liberté euh, fonction du dugg dans le dans le fond mais nangul nañ ko lenn juge bi nee na ko de la cour suprême nee na ko am nga sañ-sañ waa ji bu nekkul ci liste yi nga bañ ko jox fiche mais at décision boobu moo jiitu décision wu Ziguinchor ba pare juge bi la wax loolu maanaam ci ordonnance bi dañuy il faut ñu ràññee ñetti type de contentieux contentieux sur les inscriptions maanaam ci mbindu mi contentieux sur la candidature ak contentieux sur les opérations électorales mooy scrutin bi léegi nag ki nga xam ne moo war a atte euh, maanaam contentieux sur les inscriptions mooy le juge de Ziguinchor avant que maintenant ñuy def pourvoi léegi moom àtte na. te dañ la ko yow sa àtte te dañ la ko yow sa àtte warutoon bind préfet. parce que nee na loolu conseil yu Ousmane Sonko ñoo waroon dem jox ko préfet mais moom warutoon def ordonnance di ko jox préfet. parce que moom nee en cinquante ans de baro musul gis loolu. non déet euh, ñàkk ko gis terewul mu doon une procédure légal nee naa leen encore une fois. Hmm. on est en matière électorale. préfet boobu li mu def euh, euh, euh, président tribunal d'instance li mu def xam na ko parce que disposition bi moo ni ko mhm. boo jëlee décision d'abord délai bi dañ ko encadré waa ji nga xam ni moom mooy def recours am na juróomi fan bu defee recours juge bi am na fukki fan pour tontu ko juge bi ñu ni ko boo boo boo boo jëlee sa dogal am nga ñaari fan pour notifier ko loi bi moo ne ko da koy notifier intéressé bi ki def recours am ak préfet wala sous préfet mhm. comme commune foofu la Ousmane Sonko bindoo Euh, donc dañuy dépendre ci préfet préfet sañ-sañ boobu la def. Mhm. notifier ko encore une fois euh, li tax mbir mi xaw a xaw a nit ñi xaw a réer lii yàgg naa am procédure bu simple la dañu la. yow miy def recours tu n'as même pas besoin du ministère d'un avocat nga jël avocat yow bu la neex sa feuille ngay bind nga ne ah président man kat damaa def demande euh, ñu ne ma de modification wala bu mënti doon radiation et ñu ne ma duma ko jël yoon dani président bi lay commission administrative bi la war a inscrire bu fekkee danga ñëw mu bañ laa nangul yow sa demande yoon dañu ko yow il faut nga bind ko notifier ko lan moo tax pour que moom mu mën a gis euh, dem saisir le président du tribunal d'instance euh, bu président bu jëlee dogalam le fait que ñuy informé en fait euh, préfet bi c'est pour que préfet bi informer en fait la commission ñu ñu bu nee dañ ko dañ la intégré ñu intégré la bu nee bu ñu la yow am nga possibilité de def pourvoi mais am mu am beneen niveau ñëpp xam nañu bu ñu defee inscription sur liste électorale après dañuy yóbbu euh, maanaam document yi au niveau central ñu def traitement bi. Mm-hmm. bu ñu defee traitement bi. Mm-hmm. après maanaam affiché envoyé liste yi ci préfecture yeeg sous yi loolu la ñuy wax publication de liste électorale ñu may la ay fan pour électeurs yi mën a ñëw xool ki ko ku gisul sa tur wala ku ñu génne. Mm-hmm. nga mën a def recours jaar fi nga jaaroon. léegi nag en dehors de ñaari étape yooyu dafa am troisième étape loo xam ni euh, ci foofu lañ jaaroon ba génne Karim Wade ci liste yi. article L 43 euh, R R laa wax dans la partie règlement 43 moo ne woon euh, au moment de la consultation du fichier les services centraux peuvent procéder à des rejets motivés mais non seulement dañuy envoyer liste ñi ñu euh, ñi ñu ñi ñu ñi ñu mooy radiation. Mm. pour que ñoom ñu mën a def recours. léegi nag disposition boobu dafa làqatu woon ci code bi léegi nag auditeurs yi bi ñu ñëwee 2021. Mm. ak mission d' évaluation dañ ni léegi procédure boobu nañ ko clarifier ci parti législative bi looloo tax article L 40 ñu ni. condition ñeenti condition yi lañ mën a génnee ni rajo nit wax ne la mooy cas de décès dûment avéré ah, Euh, par un certificat de décès cas de contestation avérée euh, euh, à la suite d'une décision de justice bu entraîné sa déchéance électorale wala nga perdre sa nationalité ñu ne ñu préciser daal ne nag la radiation d'office à principalement lieu au moment de la consultation après que ñu def la phase de, publication des listes kon tey ñi nga xam ne ñoo jël décision bi génne Ousmane Sonko du président commission bi ce n'est pas à la suite de la publication mais bi ñuy def traitement bi parce que dafa am système d'interface boo xam ne dafa am entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur ñu bëri duñ dañ leen di échapper ce qui fait que bu ñu fekkee décision de justice dafa génn euh, ministère de la justice dafay jël disposition trans informer ministère de l'intérieur pour que moom mu xool ñi nga xam ne dañu perdre seen droit de vote loolu moo taxoon bi di wax naan que radiation Sonko c'est pas une radiation euh, procédure régulière man leen dañ leen def ndànk c'est une procédure régulière alors Euh, ci laa leen wax ni effectivement ñoom fi ñu sukkandiku mooy décision jugement bi nga xam ni euh, le le le le tribunal régional hors classe de Dakar d'instance da ko rendre wax ni ko Ousmane Sonko dañ ko jugé par contumace te yàgg ngeen ma dégg may attirer attention di naan euh, article L29 quatrièmement dañuy ku nekk en état de contumace mënoo nekk ci liste yi. Mhm. kon ministère bi muy jël dogal pour génn Ousmane Sonko ci liste yi loolu mbégoo na ak code bi waaye code bi article L41 moo bu fekkee jël nga décision bi euh, yowaay yi da ko koy maanaam da nga ko koy euh, notifier l'électeur reçoit or ñëpp xam nañ ni diggante bi ñu jël décision bi ak bi ñu ko waree notifier Ousmane Sonko fekk Ousmane Sonko tëj nañ ko kaso. et d'ailleurs si lool si le juge bi fondé wu. ak yeneen argument mhm. pour dire que effectivement la procédure n'est pas régulière. Mhm. keroog maa ngi wax naan Ousmane Sonko waa DGE ñoo ko remettre dans le jeu. gis nga ñoom xam nga tey Ousmane Sonko dafa jàppoon ni kon du woon mës or bu ñu deewoon ba ci cëppaandaw ba bu ñëwee conseil dañuy indi décision boobu bi ko jugé par contumace su boobaa conseil constitutionnel du seet est-ce que procédure bi réglé na ou pas la preuve jurisprudence Khalifa Sall noonu la demee mais puisque moom dañ ko refuser fiche de parrainage donc foofu la le principe bu en fait donc de la de la connaissance. mais fan la différence am ci kaawu Ousmane Sonko Karim Wade ak Khalifa Sall yi nga xam ne ñoom joxoon nañ leen fiche de moom ñu bañal ko ko. waaw léegi kaawu Karim hmm. moom dañ ko rajee woon. biñ ko rajee waa ministère de l'intérieur si boppam ñoo def conférence de presse wax ni Karim raje nañ ko si liste électorale lii moo tax ñu raje ko. Mm-hmm. mais terewul. ba ñu war a joxe fiche te disposition bi changé wul dañ ko jox fiche. Mm-hmm. boo xalifa saal son cas est un peu particulier parce que Khalifa euh, maanaam ba ba ñuy ba ba ñuy ba ba ñuy déposé candidature yi. xalifa mm. moo ngi woon ci liste électorale yi. pourquoi parce que dañu pare phase yu mbindu mi. euh, pare phase contentieux bi alors que la la euh, la condamnation n'était pas encore définitive. Mm-hmm. après fi ñu laytaayoo mooy. Euh, maanaam valeur rabat si la wax est-ce que dafa science ou pas mais de toute manière sur la base de la décision bi nga xam ni le procureur euh, en fait de la cour suprême jébbal na ko donc conseil constitutionnel amaa sax sam benn xarit du ma tudd turam juriste bu mag la mu ma ah est-ce que sañ-sañu procureur la woon mu mu mu mu joxe ko mun naa la qui normalement nag ñi def contentieux ñu euh, yeneen candidats yi. comme waa Benno ñoo waroon def loolu. mais il revenait pas euh, justement à ce que ñoom ministre de l'intérieur waxoon na ni Karim du mën a nekk candidat et c'est le même ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye bi wax tey ne Ousmane Sonko. waaw dafa war a nekk candidat à la à la différence que à la différence que à la différence que Khalifa Sall tout comme. Euh, Karim Wade mhm. ñoom ñëw nañ ñu jox leen seen fiche parrainage ñu déposer seen candidature ñu jàll tax. parrainage bi. mais après leen conseil constitutionnel mooy yéen dañ leen a condamnation boo xam ne tax na yéen vous êtes inéligible. Mm-hmm. mu cité article vingt sept à l' article trente ak trente et wax ni que donc da ngeen effectivement donc votre qualité d' mm-hmm. mais cette fois euh, li ci xaw a doyaat si kaawu Sonko bi mooy moment bi nga xam ne moom la ñuy rajo Ousmane booba nii Khalifa Sall nii nii Karim Wade encore éligible parce que pour fexe nan la ñu soppee code électoral bi mën leen dugal donc ce qui veut dire que voté guñ loi bi. donc décision bi bi radier Sonko waroon nañu mën a jaar foofu pour radier leen. donc loolu dafay dafay xaw a teel. Ah, kon dañu dañu anticiper kon ci radiation am avant que ñuy dugal loi bi. bi nga xam ne moo jógee ci jàll non non dama loi bi bi ñu dugal. Hmm. moom moo tax xalifa Sall ak Karim Wade mën a bokkaat. Hmm. mais moment bi nga xam ne ñoo ngi radier Ousmane Sonko moment boobu Khalifa. ak euh, Karim Wade il n'était pas encore éligible parce que am na décision boo xam ne dal na seen kaw te modifié gu ñu code bi. Mm-hmm. loolu moo taxoon à l'époque dama waxoon ni texte bi ma njëkk a bind le 10 juillet dama wax ni la radiation euh, d'office pourquoi deux poids deux mesures. Mm-hmm.